Neymar comme ni ngeen ko gisee yéen téléspectateur u Equivox TV yi ci biir làmb ji ak moto Jakarta yi ni ñu bëree ci biir joge Sénégal gis nga ah gis naa fi ay Tamba Kaolack maanaam Sénégal Mbuur Foundiougne fu ne oto yi jóge nañ fa tey ñëw fii ci Gambia ngir lan ngir làmb kon encore une rek monsieur le président de la république Macky Sall yow mi nga xam ne yaay sunu njiital réew il faut rek ñuy wax ak yow parce que du mën a ñàkk parce que yaa nu jiite loolu la suñu borom bi dogal ñu nangul la ko kooku moom taxi Gambia la kilifa gi yow nga ne foo jóge léegi la kër Samba Gueye Samba Gueye foofu laa jógee ko commune rurale Samba Gueye nekk fa bokk CNC ñu ñëw def ñu formation pour lamb ay arbitre lañu di ancien mbër maay ceebu jën bu Samba Gueye ceebu jën bu Samba Gueye dama bi ngay bëre safoon nga laay lay la laaw su ma galgal bii gars yi dañ ko doon moytu baas mun baas baas bu Touba Kër Kadim kese moo ma daan mas mas di ba ak jere mu sañ ci Aliou Ndiaye. loo daan bàkkoo. ceebu jën bu Samba Gueye. ceebu jën bu Samba Gueye man maay ceebu jën bu. mënoo bàkku. roof laay bëree roof. ceebu jën bu Samba Gueye. wax naa la ko gaa yaa ngi nii toog. lamb rek la ñuy dund. soqange ñoom Doudou Faye gaa yi ñoom Moussa Abdou Waxal ñii lamb la ñuy wër fu mu ne ci senegal dañu fay dem. Abdou waxal Abdou maa ngi lay ziar. la UPV. mbaa am nga jàmm. Ah? am nga jàmm. am naa jàmm bu baax Babacar. mu mel ni yéen làmb làmb fu mu nekk rek da koy topp. billaay wallaay taala ñun ay amateur lañu bëgg làmb rek te yàlla tax xam nga làmb dafa am ñi ñi ñuy dund ci làmb ak ñuy dundal làmb ñun nag duñu dund ci làmb dañ koy dundal làmb dafa nekk suñu dërët fu mu nekk rek Ndakaaru lañ jóge ba fii bii mooy suñu ñaareelu yoon xam nga ñetteelu yoon xam ne dañu bàyyi suñu te ñëw fii te ba léegi bàyyeeguñu ji ñaan autorité Sénégal ñu ñu jël mesure barrière yi ngir yàlla ak yonte bi Matar Ba ñu ngi koy ñaan ñu jël mesure barrière yi sol maski yi euh, ak gel ñu ñu ubbi làmb ji ñu ñu ñu ñu kii quoi moom moo ñuy dundal billaay walaay taala maa ngi lay ziar Babacar delloo naa le ziar am nga jàmm bu bari mu mel ni ki lamb fu mu ne da ngeen koy topp yéen. billaahi ba tey lamb jaa fi mu ne woon lamb jaa fi mu ne woon bu baax a baax Babacar kontaan bu baax a baax nag rafetlu tamit liggéey bi vraiment gis nga gis nañ fi ngeen jóge ba fii lamb rek tax leen a jóg yal na leen yàlla lafal cat. Babacar ñu ngi la grand sam. sant yàlla rek na ko. borom Gambia. waaw gis nga. <laughs> man ñëw naa nga dalal ma fi Gambia fii. waaw doomu Gambia laa nag. mënut a ñàkk. waaw waaw. tey boo xoolee lamb ji ni mu mel Gambia. nga gis lii muy biir Gàmbi loo yëg. waaw ah, lii sant yàlla la rek lii day wone ni gars war na ñoo bàyyi ñu nekk ci activité yi quoi yàqul dara ak li xew ndax ku ci nekk yaa ngi say activité depuis boobu ba léegi toog daanaka deux ans nga koy préparer benn combat munoo bëre dafa métti quoi bari sëñ Tuuba te xam nga gis nga tey boo yee ngi nii di compétir di daan doole li ñuy def nii daan doole la tey ñun buñ fi ñëwee bàyyi lépp toog lii lañ namm barke sëñ Touba ñoo namu bëre namu lépp gars yi dañoo war a ga bàyyi gars yi ñu bëre ko waaw mooy yoon barke sëñ Touba jotewul dara ak li ñuy def nañ jël mesure yi rek ñu bàyyi ñu nekk ci pare nga pour bëre huis clos. man buñ budul huis clos naa bëre rek man lu mën a xew buñ ma woon pour ma gàmmu kay ñu daje géej bëre pare naa man. mais sa promoteur ne na moom du tëgg huis clos de. waaw xam nga tamit bu ko waxee xel da koy nangu parce que promoteur bu ndaw la kattanu boppam lay demee. boo amee lu ko dooleel ci ginnaaw mu ñeme mais bu ko amul ñemewu ko parce que kuy dem ak say propre moyen te demeewul noonu dangay ngay góorgóorlu rek boo buggee dug ci huis clos da ngay suru Babacar maa ngi lay fay am naa jàmm bu baax a baax du nuyu waa Equivox dégg naa Yagamar am na jabar ma kontaan ci trop amagul dara Malick utal ko ah, yàgg yàlla baax na Gambien nañ ko may soxna waaw incha allah mais tey boo ñëwee démb nga gis lamb ji ni mu meloon ci wàllu désordre Fallou Ndiaye indi fi xaalis teg fi un million deux cent am tey mu mel ni gars yi dañoo jàngat ba defaat defar affaire bi tey boo gisee lii looy rafet na trop parce que dafa wane ne démb ñëw nañ jàng te ñu tiiree jàngat li amoon dem manquement ñoom ñu teg ko géew bi leer na ñëpp a ngi gis donc ñu ngi gën a sentir suñu bopp daal comme suñu dëkk donc rafet na trop ñuy encouragé Fallou Ndiaye nim ñu invité ñun ñëpp ñu daje fi parce que ñun ñëpp ci invitation lañ fi ñëwee euh, ñuy rafetlu affaire bi trop sax vraiment. yow am nga arbitrage Soukambi bi noo ko bon arbitre arbitre la euh, kontaan ci rek xam ne loo gis jàng la waaw xëy na li nga tàmm di ko def di ko defaat euh, du bokk ak ki nga xam ne xëy na ni mu koy defee xaw na wuute boo defee balaa ngay defaat mu yàgg parce que loo gis pratique la li ngay def di ko defaat di ko defaat bu yàggee erreur yu bëri da nga koy dindi mais bu fekkee day gëj rek. mën nga ñàkk laame muy indi yenni tolof tolof mais gis nañ ne ñu ngi am mu ngi jéego ñu ngi ñu ngi jéegi ay kii yu bëri daal. yow tey pare nga tamit ñëw pour jàppale arbitre ci bés bi tey. non tey nag wax dëgg yàlla ñëwuma ci kii wu arbitre dama ñëw rek ci invitation Fallou Ndiaye euh, ñu bokk euh, bés bi ma ko rafetlu trop daal di ko ci remercier. kontaan ci merci Babacar. waaw ah, merci. mooy Malick Ngom. loxo final ba léegi passé waaw. mais tey noo gisee lamb ji. non lamb ji moom mu daal di am nii. non parfois ma yëngu. damay bàyyi loolu finition yi maa ngi lay ziar. delloo ziar. Pël borom Gambia. loolu dafa leer. loolu la yàlla dogal. maa ceeb yu neex yi. maa ngi nii toog ragalu. borom yu neex yaa ginaar ya ndawal maa ngi tuub ndawal. <laughs> mais noo gisee lamb ji fii. neex waroo mu neex Babacar. lamb ji neex na jeex na waa senegal gépp est-ce xam nga ne ñu ngi fii tey. loolu biti dafa naan dañoo namu làmb nag. oto yi boo génnee ci biti moto Jakarta yi pël réew ma ñëw nañu. ñëpp a ñëw maanaam Gambie boo bëggee dégg jamono ji Gambie la Gambie moo nangu làmb nañ ko nangu rek loolu la yàlla dogal. loolu la yàlla dogal dañoo war a ubbi. sa bopp. maa la wax loolu de. waaye tamit le 4 avril. Sénégal dina yëngu de. le 4 avril de Sombe. <laughs> ay suñu pap Eumeu Sène Lac de Guiers 2. Lac <laughs> na ca dee. Diène Kairé. waaw Modou Anta Modou Anta Baye Fall ba. non dina yëngu. ku koy lijjanti. lool dina mel ni ba tubaab kër ga ne duusee bokk. arbitre balaa yërëm. lii waa yow koy wax na. <laughs> non nii nii daf may neex ana tàndaa nga ñëw parce que man xaw ma waloon ci nii fàllu xoolal li sol. kaw ba suuf Fallou tey daa mel ni daa summeeku. waaw non la alama ji moo laay summeeku nag xam nga des démb dañoo gis loo xam ne tey il faut ñu summeeku pour ñëw wanewaat suñu bopp nag ndax boo boo bàyyee mu sedd rek làmb ji yàqu il faut nga summeeku takk ndigal ba mu dëgër pour organiser pour ñëpp mën cee jariñu rek. tey Ndiaye production maanaam def ngeen loo xam ne fii ci Fass Coy Fass Coy lu doy waar la Sénégal yëpp a ngi fi. ak waa Gàmbi loolu tey ak li amoon démb daa mel ni. ñii ñooy waa Fass Jom Babacar ñoom lañ lëkkalool ci bis bi ñu war cee liggéey xam na après nga jël ko mu wax ci moom it mais Babacar lool moo ñu gën a kontaan lool dañoo gis tey sénégalais yi ñoo sax ëpp Gambien yi ñëpp dépassé Sénégal daa seen oto ñëw pour séance bis bi nga xam ne lamb mu ngi fa mu nekkoon. ñoo xam ne làmb mu ngi fa nekkoon xam ne làmb tamit delluwaat na fa mu nekkoon xam ne làmb kenn mu mu ko mën naa dem fu ne. waaw ah sant yàlla rek ñu sant yàlla waa juli ci yeneen bi sang-sang yi waaw di sant suñ borom bi ba pare di di jël ñaanal suñ kilifa yi waaw di ñaanal itam ñi nga xam ne ñëpp ñoo nekk doomi Fass yi. maar mu ngay jooy yàgg maar man lay siiwal yow man ngay siiwal yow. ci ma gisee nii rek ni ma fekkee nii rek samay vidéo ngay takk di ko di ko siiwal non mooy yoon xam nga yow da bokk ci làmb dama dama bëgg làmb di dund làmb waaw temps yaa ngi gàmbi waaw maa ngi gàmbi la waaw naka neex na wax dëgg yàlla su ma sañoon sax kenn du ko tëj parce que maa ngi dégg léegi dañ ko war a tëj dañ ko waroon tëj parce que ñun amuñu lu dul làmb bëgg-bëgg moo ñun ci lii tey ku gis champion yi fii ak ñun ñi tey ñuy ñàkkante ñu xam ne dañu bëgg làmb xam nga loolu la ñu koy dund daal tey xam nga waaw nañ ci a jàpp daal waaw Gambie neex na lool waaye Sénégal aussi tamit neex na toog te nañ xaar teer ñu ngay xeex atte leen leen bëreetuñu de Gandia Fama ak Hercule bëreetuñu de lamb ji tas lamb ji mbaadu tas premier combat poids lourd lourd yi 35 la eh Pape Thiam 12 ans waay daanante leen waay jël nañ tànku Pape Thiam daan nañu ko waay 12 ans yàgg maar lii yomb na de waay ñaq ak libidoor bëre ay ñaq yaak libidoor e eh cey xaddaafi waa ñaar ñi nag yàgg maar sa mbër mii yàgg maar sa mbër mii yàgg maar sa mbër mii di nga da ñaq ñaq di nga ñaq ak libidoor mboot mboot mboot ñaq dañ lay daan walla ñaq bañ na de dinañu mbootante ñaq da daanu foofu baaxul ci yow ñaq wër nañ la ndombo dañ lay daan ñaq dañ lay daan ñaq yaag li bi door ñaq ak li waay ñaq jëriñu waay <laughs> e ñaq waay sukkar bi ñaq bañ waay ñaq a ngi e ñaq a ngi ñaq ngi ko é eh, daanu na ñaq daanu na action ñaq ngay bëréngu ay waay ñaq daa monte action ñu xajal ko mu daanu ñaq jógal ñaq Libidor de laa daan de waaw xam nga rek gis lam bi xam ne nu mu demee xool tey def naa bi mooy sama deuxième combat tey si si liste bi tey ma ñëw def lii kon ku xool xam ni carrément nañ ma xaar parce que li tax mooy man bëri nañu mu jël sama tànk da wóor ma noonu ma ànd moom tey ku xaw loolu ñax tey am na loo gis ci ñax ñax wan na moom te a bëri laa nekk ci man la te daaw gis nga demee ma doon na préparé woon ko pour wane sama bopp ni làmb demee waaye sant yàlla parce ma doon tenté la naan pousse tànk moom mas gil da laa xajal non saay saay la mbër mag la yàgg na xam nga waaw xam nga ku ko yoon compétir tey ñëw di compétir bii deuxième deuxième am mu demee nii dañ ma xaar histoire tiendra waaye ay feem la rek xam nga xam nga ma yow yaa ngi doon ñàkk nooy feccee xam nga ma loolu xam nga man waaw gis nga sama ma koy mbay gaay dama pare woon Babacar tey yàlla rek moo ma xañ waaye tey dama pare woon pour yóbbu tournoi bi parce que Fallou Ndiaye moom dëggal TFP kon lii sama yëf la woon waaye nag xëñ na jaam ak pexem yàlla ak dogal ma si sant yàlla baax waaye àjjana ndombo wër ndombo wër mu bañ da koy daan arbitre soufflé na adversaire ñaan na taf ci kawam cheikh moo féete gos jàppante ca kaw seetantey dooley bopp wala dooley loos bàyyente tibb suuf raxasu jàppantey loxo jàpp tànk amagul daw na jël ko lee waaye Cheikh tiijan Cheikh Tidiane ñaa eh maar da koo riñaan xam nga riñaan riñaan a ngi nii juuf Diouf Adama Diouf Adama Diouf e waay daan na ko de jaxabal na ko daan ko mariama oya oye kami nana kon me ay way por casa ya por casa ya wit laa koy daan tey wit laa koy daan wit laa koy daan wit laa koy daan wit laa koy daan kii daan nit nit day la toll. dama kaa daan man du ma naan per du ma naan per billaay wala tala damay entraîné. gën a ñeme bu nekkoon jaagaan ñooñu moom la ñu teg suñu diggante du ko jël barki Seydina Mohamed. mais luy seen problème kii dama kaa fekk palmarin muy daw barki Seydina Mohamed xaw ma aw ma tànk ginnaaw ci kanam rek marakis laa. bu ma nañ ma rey barke Seydina Mohamed. tey tey ragal la. tey fii bu ngeen tajee nu muy demee. kii li si kanam rawul bët nañ dox ba si kanam barke Seydina Mohamed. e e e dóor tànk atte na Saga Ligi Laga. Oh God! Fucking move! Oh, oh. Ah. Babacar Lamine la ñuy woy Lamine. eto eto mi solu ba rafet. di woy rafet. solu ba rafet. libidoor. ewa. waaw waaw. eh. Gandia Fama. ewa. ndeysaan.

Yakumar xool borom yet wi eh waay wallaahi moo ma doon yóbbu lamba billaahi wallaahi dallaahi loolu billaahi sant yi sant yi xel baa dele Eto'o Eto'o fils mais sa diggante ak Doudou Sané lan mooy problème bi lamba ah. lamba ma daan ka rek loolu mooy problème bi dama koy daan ñëpp nee na ko daan de yàlla baax na on verra on verra les conséquences. incha allah léegi tey léegi tey même pas des jours des heures des minutes des secondes des dièses <laughs> yaba oy oh god asara oy cey waay aca bayang Dami lakati Espagne. Bam alubal waxal waay. God. Eh ndombo ndombo bàyyi ma du ko ba de dana du ko bàyyi. Nee na ba mukk. Xalaatu ko ba. Foo jëm moom. Mbaa du rëcc. Saakuba saakuba. Saakuba. Saakuba. Wër ndombo. Libidor Batista. Libidor ginnaaw bi mu daanee ñàkk jariñu bii mooy deuxième combat am Batista à gauche Libidor à droite waaye yàgg làmb ji loo ci mën a dégg neex na làmb ji saf na neex waaye gis naa fi booy bu jar a xel eh Libidor daw na jëli Batista bañ Libidor a wan ginnaaw ñu ngay wëndeelu mbot mu bañ eh laa ilaha e na ko fàq mu bañ jógaat taf fekkiwul kenn waay eh mbootante ma lay fàttali ne moo daan ñàkk jariñu combat bu rëy la ñàkk bëreeg moom yëkkati mu bañ Batista caxabal na ko daa dis de daa dis de Batista moytul dañ la yëkkati daan la doole doole doole doole doole doole xoolal lii doole duut saare bu la pee doole da lay jaay doole gis nga bu la pee doole da lay bëgg a jaay doole de te daa mel ni loolu la bëgg a booy bi waaye tee moo teey Doudou Sané à droite Cheikh Tidiane xuloo nañu laa ilaha illallah combat dëgg ngi dañoo xuloo sànq ci seex daw na jëli lu xew seex Tidiane bu ñoojoor joof yoor ñoojoor seen ñaari doom daw na jëli ko seex hee daw na jël ko daw na jël ko daw na jël ko seexe dan na ko laa ilaha illallah doole doole da doole xeex da doole xeex kaay jël ko buteelu vingt ba xoolal Xaddaafi laa ilaha illallah yàgg maar fuɗɗay kena maframe o magun o ndeɓa ref kon daxa xe sa njongum bilahi refes tigi fop seeda nuun yarwa ɗareer a yarwa yaro tax te jega te jega solo ina fop mbaru njom ka faga i lakas bilahi dare a ñoox bi limitor daan ko o oh, daan ko waay sukar bi Libidor ak Moget jëlante nañu hey da koy daan Libidor da koy daan Libidor daan na Moget ay waay daan nañu Moget Libidor daan na Moget demi-finale lourd Biram Misine ak Doudou Sané biram mbisin dut saane daw na jël ko daw na jël ko biram mbisin dut na ko arbitre nee na nañu bëre waat dina ko daan war na ko ndombo dul saane war na ko yëkkati na ko door ci suuf biram bañ na biram bañ na ñu ngi ca poto ba ñu ngi ca poto ba arbitre la ilaha illallah faq war na ko dombo war na ko ndombo wër na ko ndombo Birame Mbissine jàpp na ci poto bi da nga ëpp doole da nga leen a dàq bëre wala lu xew géej a bëre rek moo tax affaire bi di yéex billaahi xam nga dix mois dix mois daa métti trop billaahi ñu toog ko nga toog billaay compétition la ñuy manqué quoi mais saa yi moom repère bi mu ngi fi xam-xam bi mu fi barke Seydul Xadim damaa gëm sama bopp damaa liggéey damaa liggéey barke Seydul Xadim. la moo tax say combat metti dama gis say combat yëpp ay derby tey. ah maanaam say adversaire ñëpp sa combat ak ñoom daa metti. waaw sant borom bi rek ñun moom taalibe Sëñ lañu loolu jaaxaluñu. billaahi. xam nga ne yaa dem final tey. Ah. moo bëggoon sax ñu bindaat gars yi ñu bëriwaat. Libidor mos nga Libidor ngay finaalul xam nga Libidor. Libidor non xam naa ko. Doudou Sané mu nga ca côté seetaankat ya waaye loo ci mën a dégg làmb ji war nañ koo bi war nañ koo ubbi boog gars yi namm nañu làmb Sénégal tey kenn desul ñëpp jàppante di dégloonte jàppante ne teg di dégloonte jàppante ne teg di dégloonte ñu fàttali leen ne final bi si luur yi mis bi tey un million la luur les deux cent cinquante mille Johnson Johnson jël na lu ko moom lese ba cey mbayang lu moom nga dégg muy way noonu fàq soo door fàq na ko moom ñaar ñëpp boo xoolee dañoo diis ñoom ñaar ñëpp a diis Equivox TV nuyu nañ téléspectateurs yi képp ku ñuy bëgg nañu seetaan ak foo mën a si àddina bi Babacar ngi lay bëgg àndoon ak yàgg maar fii ci Gambia bëggoon rek ngeen xam xibaaru làmb yi fi xew parce que ak Babacar ak Equivox ba si Arena waa ngeen di am làmb nag ba mu doy du mën a ñàkk loolu la yàlla dogal. waaye lépp luy information tamit da ngeen koy am nag lu xew ci réew politique baak religion baak agriculture ak santé éducation lépp Sénégal Equivox di ko bàyyi mooy nuyu suma DC yi rawatina kilifa gu mag a mag gi di ko ñaanal jàmm. ndax wax dëgg jàmbaar nga yaa ngi góorgóor dafa effort ngir Equivox di nuyu directeur Vox Arena muy Alioune Badara Diouf dëkk Passy waaye di nuyu directeur programme mu ñu naan ko Elas Diouf série mama maa ngi koy bëggee di nuyu personnelu Equivox TV bi yëpp ñoom yàgg maar Mohamed Samb Ami Diouf Balde Gomis Xulle Moodu taalibe Baye Niass Abdou Saliw lépp ci biir mu koy biic mu bañ waaye jama duma ko fàtte lépp ci Equivox TV la wallaay xëccaat na ko mu bañ cay jooju làmb du yomb bi final di door ak Kadhafi arbitre arbitre arbitre soufflé waat na de ba tey ñaari mbër yaa nga ca boo xool nag fi mu nekk nii heure bi guddi na lool bët sax set na mën naa ba ndax ñu ci 6 làmb ji xoolee mën nga ne zéro heure la démarré ba six heures du nit ñi toog di ko seetaan loolu moo lay wan ne Sénégambia làmb la ñu bëgg parce que mooy seen cosaan fàq na ko mu bañ kon yéen ñi yi ñu jiite président ñu lay nuyu di la ak sa nattango Adama Barrow ci Gambia gii ñu ne. sport bi nga xam ne mooy sunu culture di làmb lu ngeen ko may doole du doy déedéet seenu askan a ko bëgg la tax ñu bëgg ko nag da di nit ki doo moomul te am li nga moom te muy qualité te làmb noo ko moom te qualité la aar la waa ndax fecc ak way ak tëgg ngay dégg bëree kon loolu Afrique la am rawatina Sénégal gën leen koo jox cër yéen a ngi ci waa yokku leen waa comme nañ koy waxee yokku cër dolli ñeex du ba du ci yàq dara jéggulu si baat bi nag ñaari fan dadi deux jours ngay wax di reporté ba tere yi fay ka li maanaam liggéey baa yombul waaye nag du ñàkk liggéey moom faaw nga yëg ne yaa ngi liggéey boo bëggee mu amal la te jaral ngeen ñu ko yéen ñuy seetaan daanante leen te jóg fi waay daanante leen te jóg fi yéen ñaar li jara li nag mooy ñoom ñaar mësu ñoo daje te géew bu ne daje nañ fa kat cib tournoi waaye mësu ñoo bëri waaye tey nag bëri nañu. Abdoul Sané wax fàttali daan na fi Cheikh Tidiane Niang combat bi bëri woon tension metti woon lool lool lool waaye ñàkk jariñu tamit li mi daan na ko fi cey loolu wayu final wayu final Abdoul Sané moytun li bi loolu mooy tante da koy puus du ngay ñëwaat Sané jël na benn avertissement Doudou daw na jëli ko waaye Libidor bañ na boo xoolee Libidor daa mën a bëre te Libidor bi ma gisoon daaw nii ak bi ma gis ren Libidor yokku na doole waa gën naa diis Doudou moytul Doudou moytul lu xew na Doudou ak Libidor a ah, dóorante wala lu xew lu xew lu xew lu xew dóorante wala teg leen ko ci yoon waaye final bu méttee ngi Doudou ak Libidor Doudou ak Libidor fàq na ko caxabal na ko lamba caxabal na ko lamba caxabal na ko lamba jeex na wala lu xew xew lu xew coow dina am fii de lu xew ku daan ku daan arbitre